tàmbali woon rek ñu ko euh, ndaw ñi incha allahu rabbi mooy liggéey Touba ville lumière ci lañ nekkoon léegi ñu jëm ci sancaan yi ku ci mel ne jàll ba ci Ndodi incha allahu rabbi fépp koo xam ne ni gox boo xam ne ni am nañu yéene waa ba taataan nañu seeni soxla mu ngi jëm ci wàllum leeral leeral bokk ci firnde sécurité yi xayma sécurité yi ñu war leen jàppale ci ay làmp su mel ne président Abdoulaye Sylla jox ñu ci ndigal ñu ciy wéyal liggéey bu am solo loolu ñu ànd ceeg sama sama jàmbaar yi Baye Fall yi dëgg yàlla ñu ci amal liggéey bu am solo moom la ñuy wéyal nii tey jii jëndaat lu mel ne fukki làmp ak juróom-ñeent war koo yóbbu ci gox goxaat yi fépp fu ñu ci dem rek ñu installé leen leen ñu jàppale leen ci wàllum sécurité bi wàllum éclairage xanaa muy mbir mu am solo sociale moom mbirum Ablaye Sylla la li ma leen di wax rek faral di wax am na yenn yoo xam ne nii moom jarul sax di di gannaaw yéen daal ci li ngeen nekk nekk leen ci rek maanaam pay mi mi suñ kanam résultat yi ci kanam lay feeñ incha allah liggéey rek jaamu yàlla teg suñuy mbir ci yoon loolu la ñu Ablaye président Ablaye Sylla sant te ci lañ nekk ànd ak ay nit ñu am valeur soxla ci liggéey bi tamit ay doomu aadama yu am valeur incha allah rabbi noonu lañ koy wéyalee ci gox goxaat yëpp bu so bu soobee yàlla buñ demee jébbale technicien bi ñëw la lan demee installé leen ko incha allahu rabbi bu ko defee tamit ñoom ci wet gi nga xam ne nii ci la ñuy mën di jàppalantee ñu d' accord ci projet président Abdoulaye Sylla ñu addu ci jëflante ceeg ñoom bañ d' accord ci lu mel noonu ñëw seen GIE bi nekk foofu yëpp am yéene jàppale président Abdoulaye Sylla ci parrainage bu ko defee suñu ndaw yi ña nga fa installé nañ lépp luy jëm ci jumtukaay yi ñuy bëgg a dem ci kanam jàmm jël seen parrainage yi lu ci toll ci téeméeri nit ñoo nga fa di ñu xaar incha allah buñ demee rek bu soobee yàlla saa borom ñu jël ko ci anam yi nga xam ne nii suñu kilifa suñu suñu lépp noonu lañ ñu ko yónnee ñu jëfee ko noonu jël ko dans les règles de l'art incha allahu rabbi jërëjëfati asiru ma wa كل مسير يسير بها الكسب الذي آدمي لا كريم عليه معلوم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتايبي ويسير الرداء من الله بشير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له xadiman li xayri lxalqi wa huwa nasiru yujiiruni alkaafi bi min azamida wa min kulli suuin wa huwa jalla mujiiru masiiriya kawni abdu xaadima nabi waaru lbaraaya lilaahi yasiru suuri wa ayaani xadan li sawa waaw ñu ngi noonu ci liggéey bi ma ne Serigne Ndiaye moo nekk noonu du aj euh, bale yi ak tame yi euh, waa C50 daal ñu ngi noonu waaw donc daal mbir mi mi ngi noonu liggéey rek moo am solo te ñi ngi nekk ci wàllum leeral bi muy làmp yi mi ngi nii ak euh, fexe ba dëkk bi set ndax dañoo wax ne an nasaafatu minal imaan yi set dafa bokk ci gëm yàlla donc kon ci loolu lañ nekk waaw liggéey daal moo am solo donc suñ saaliwu ci lii la nekk mi ngi def lu am solo ci dëkk bi di dem ci meeri mbootaay di leen jox ay làmp ak i bale pour que ñu seen koñi leer waaye ba noppi set loolu nag mooy mbir mi sutuuriya fi daari madhi muhammadan bi nazmin wa nazrin wa huwa mihmasatu busuri kitaabullahi wa sunnatullahi يا أهتم عمانا وقصور قصوري خلت والأهل عني تفرقا لمدي الذي عنه المدين خسير خلاص وهو خفور تبت من حيب الدفاع لغيره ومني لو عهد علي ضمير لو تبت ساقيه وأدعو رداه ومني لو سكر يدوم كثير فجئت ببسر منه أبقي سكوره عليه سفان والمكوس قبور وفي القلب بردوانه ما أكنه دنينا بريء الناس صدور حبوب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

وزل خالقي تحجيلا أو بي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما لا ولا سالي نعم بدور ومنه صلاة ما سلام إليه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

نور وهو سفور على وعد ستين